yoo xam ne du tontu waaye leeral la monsieur Amadou Ba candidat du parti au pouvoir nee na dama bokk ci entité politique boo xam ne dañ ko dissoudre maanaam amatul xanaa ku ko dégg ci yéen journalistes yi ma yàgg a topp yàgg ñëw ci suñuy conférence de presse yàgg ñëw ci suñuy activité boo ko déggee dina la jaaxal waaye nag ku xam ñii ni ñuy doxale ak ni ñu mel ak tiitaange bi nekk ci ñoom jamono ji ba ku fël ñu yefani seen pouvoir jeex na lu ne mën nañ ko inventé ñu ni man dama bokk ci parti politique boo xam ni dañu ko dissoudre amatul moo di Pastef ñaareel bi nee nañu dama jël ay pièces yoo xam ne ni ay fausses pièces la yu baaxul maanaam lu ñu tappale yóbbu ko conseil constitutionnel maanaam daal da ñëw ni lii pièce la boo xam ne bii maa ko indi bu baax la ndekete yoo pièce bi yaa ko inventé pièce bi baaxul loolu mooy ñaareel bi nga xam ne nee nañu moom lañ ma tuumaal ñetteel bi ñu ni coalition irrégulièrement constituée maanaam man coalition bi ma yóbbu ni ñu ko tëggee baaxul partie ya ca bokk baaxuñu wala daal ña ko defar baaxuñu ñeenteel bi ñu ne non appartenance au partie ou à la coalition qui l'a investi maanaam bokkuma ci parti wala coalition bi nga xam ne moo a investir ñeent yooyu daal mbokk yi excusez du peu nee nañu moom la ñu ma toppee ba ni sama candidature war naa war nañ koo gàntal ma jàpp ni nag loolu sénégalais boo xam ni bii rek ànd nga ak tuuti gis-gis ak xam-xam ci ni politique di doxee ci réew mi ci ñaar fukki at yi ñu ñu weesu wala fukki at yi sax gis sama trajectoire dafa lay doy sëkk pour nga xam ni amul benn ci lii boo xam ne bii dëgg la waaye dañ ciy sant yàlla waa avenir Sénégal bi ñu bëgg bi ñu convoqué suñu mandataire keroog conseil constitutionnel mu jóg di ca dem am na ci ñoo xam ne nelawuñu parce que ñu ngi naan gaañi lan la ñu gëstu ak lan la ñu war a gisal ndox ñoom xam nañu seen njiit wóolu nañ ko xam nañu ni amul benn boo xam ne gàkk-gàkk la bu ñu mën a teg sama kaw waaye nag àdduna wóorul tax ñu am ci tuuti njàqare lu ne ñu xalaat ko bi mu xëyee dem fa ñu jox ko kayit gi mu xool ko gis ci yii moom ci boppam dafa doon ree mu ne ñii de lii lañ ñu tuumaal waaye man bettuma parce que yëg naa ni ci ay fan ci ginnaaw lu ñu man ci ay moyens ñoo ngi ko doon def pour lëñ bët samay mbir am lu ñuy jeex pour am lu ñuy teg sama kaw lu dëgër fu ne nag seet nañ ko yëg naa sax ni wër nañoo wër a wër a wër ba ñu ne leen Cheikh Tidiane Dieye mii dafa am nationalité francaise xam naa ni ñàkkul ci yéen ñu ko dégg ñu ni dama am nationalité francaise ñoom itam ñu jàpp ci rek mu mel ni os à ronger di ko wër pour xëy na fu ñu ma génnelee sama carte d'identité wala passeport bu France wala leneen waaw koo xam ni alwaar gii la juddoo ca Ziguinchor nday Fatou Diop Blondin mi wax na ko màgge Ziguinchor soo faa jóge ba ba ngay am dix dix-neuf ou vingt ans bi ma amee baccalauréat dem université Saint-Louis ba am fa maîtrise jóge université de Saint-Louis dem jàngi non pas en France mais en Suisse France ma su ma faa jàngi ba ci sama liggéey sax bu ma fa dee dem du passé daanaka semaine def la may def ñibbisiwaat bu ñu nee woon sax xanaa am naa nationalité suisse mu yenu maanaa mu raisonnable mais ñu ni nationalité française laa am wër a wër évidemment duñu ko gis parce que du lu mën a am ñu dellu si dem dugg ci ay fiscalité fu ne ñu wër fa ñu xam ne mënuñu ma gàntal ci loolu ñu dem lañ sama démb ak sama barki démb ma ne leen da ngeen di sodal seen bopp yàlla day mooy bind doomu aadama maa ngi koy sant yàlla ci loolu maa ngi sant sama ñaari waajur ci bi ñu ma yaree ci njub ak ngor ak jom ba ma jombal sama bopp lenn li bu ñu wëru Amadou Ba candidat de Benno Bokk Yaakaar kandidaa premier ministre en campagne déguisé nee na man membre Pastef les patriotes la photo bii la génnee ni maa taxaw fii ci wetu Ousmane Sonko donc loolu doy na pour ñu ni man Pastef laa bokk mbokk yi photo baa ngi nii lii mooy preuve am nee na man Pastef laa bokk parce que dafa génnee photo jox ko conseil constitutionnel ne leen dama photo wu ak Ousmane Sonko photo bii nag dafa am taarix histoire lan la 2019 élection présidentielle ñun waa avenir Sénégal bi ñu bëgg ñun ñoo toog ni dañu ne woon bépp campagne électorale bu am dinañ ci am candidat 2019 jot ñu waxtaan ci suñu biir ñu ni est-ce que danañu wut candidat pour 2019 ci la ñu ni dina xat pour ñu am candidat en 2019 dañu danañu seet ku mën a ànd ak ñun ñu yóbbu la nekk jàppale la nga nekk suñu candidat en 2019 ci la ñu seet candidat yi fi nekkoon yépp ñu bari ñëw suñu siège wax ak ñun ñaan ñu pour ñu jàppale leen am na fi ay ay leader de oran yu réew mépp xam ñu ñëwoon seet si ñu suñu siège kenn ci ñoom nee na ma bi mu ñëwee xam naa ni yoruloo parti politique xam naa ni lii ngeen yor mouvement la xam naa ni bu dee mbooloo ay milliers yooyu du moom laa seet si ci yéen waaye dafa am crédibilité boo xam ne bëgg naa ko te yéen am ngeen ko dafa am constance ak ay valeurs yoo xam ne bëgg naa ñu nekk sama wet te yéen am ngeen ko dama bëgg ngeen jàppale ma lii lañu ñu boobu leader wax ñu ne ko dégg nañ la bi mu demee ñu waxtaane ko ñu ni ay valeurs yi mu gëm ci politique bokkul ak ñun valeurs yi ñu gën ci politique ci jamono jooju laa waxtaan ak Ousmane Sonko parce que xamante woon nañu déjà bu yàgg ndax bi ñuy sos avenir Sénégal bi ñu bëgg en 2015 Ousmane Sonko dañ koo invité mu ñëw ca saal ba bokk fa fekkee si 2015 bi ñuy sos avenir Sénégal bi ñu bëgg c'était en mars 2015 hôtel teeru bi pour wan leen ni avenir senegal bi ñu bëgg lu yàgg am la photo bii ngeen di gis mooy bis bi ñuy lancé avenir senegal bi ñu bëgg en 2015 Ousmane Sonko nous a fait l'amitié et l'honneur d'être venu dans la salle fekkee ko ndax bi ñu doon xam xalaat ni ñuy bindee suñu ay documents de vision ak yooyu daf ci doon sax ñëw di ànd ak ñun xanaa kon kay bu ñuy wax dañu naan moom moo bokk ci avenir Sénégal bi ñu bëgg parce que bu ma génne suñu document de vision ngeen gis ci ay mbindam parce que conseil yi mu ñu jox la pour wan leen ni ñii génnee ni dañu bokk jàppale Ousmane Sonko parce que ñun bi ñu xay sayto dañu ni Pastef la ñu bokkal gis-gis Pastef la ñu bokkal ay valeur Ousmane Sonko la ñu bokkal yoon comme jekku na pare na te ñun avenir suñu candidat parewul moom la ñuy jàppale ndax ñun amuñu obsession du pouvoir nu ne sommes pas des ñëwuñu ci lii pour fëgg suñu dënn ni ñun rek ñoo mën a jiite réew mi ku ñu gis nga mën koo jiite ñu xam ne jekku nga ci avancé lépp lu ñu mën ak lu ñu xam danañ la ko jox nga avancé pour l'intérêt du Sénégal ñu jàppale Ousmane Sonko en 2019 moo indi photo bii ma leen won mu ne ma dangay nekk sama porte-parole campagne da nga may jàppale ci bind samay discours ñoom day Fatou Diop Blondin ak lépp lu ñu amoon ci expert ñoom Julien ngi nii ñoom Maron ñu boole leen ci kuréelu Pastef yi ñu ànd en tant que allié ni ma nekkee woon allié en 2019 noonu la président Boubacar Camara nekkee woon allié noonu la Atepa Goudiaby nekkee allié noonu la yeneen fukk fukk fukki parti nekkee woon ay allié ba tax sax ñooñu après ñu def coalition jot na ànd nekk alliance politique waaye Amadou Ba preuve bii mu génnee. pour wane ni dama ànd ak Macky Sall wala euh, kii dama dama nekk ak Ousmane Sonko parce que def naa ak moom photo donc Pastef la waa léegi moom xanaa kon moom ak kii ñoo bokk parti politique bu fekkee koo àndal photo wu rek ci politique yéen a bokk parti politique Macky Sall mi ak Moustapha Niass yëkkati seen ay loxo ñoom ñaar di tàccu xanaa ñoom ñoo bokk parti politique bu APR xewle woo AFP da ciy ñëw bu wooyee PS da ciy ñëw bu wooyee ay alliés politique am bennoo dañu ciy ñëw waa ñun bu ñu demee ci activité Pastef loolu lan ban problème la ak ban ban preuve la mën a constituer que ñii dañu bokk ci parti bi dafa am yoo xam ne dafa yenuwul maanaa le bon sens sax da koo dàq daf ci yokk leneen pour provenir dama bokk ci Pastef nee na temps yi ci ginnaaw dama demoon Bordeaux benn section Pastef bu Nouvelle-Aquitaine moo ma invité ma dem ci seen meeting méga meeting nee na bi ma demee ci méga meeting bi dama ci jël parole bi ma jëlee parole dem na sax ba ni ci vingt deuxième minute bi bi may wax xam naa ni calculer na ma de waa ji topp na ma trop sax vraiment topp na ma nee na vingt deuxième minute bi ci laa wax ni ci tubaab Pastef et avenir Sénégal bi ñu bëgg son sont indissociables dégg ngeen français bi de Pastef et Avenir sont indissociables nee na nag bu ñu nee rek ñaar ñi sont sociable mooy man nangu naa ni kon Pastef laa bokk lii de la wax ci raccourci waa sëñ bi ku dégg minimum de français ma defal ko cours gratuit leçon de français quand deux entités quand deux entités sont dites indissociables cela suppose que elles existent d'abord singulièrement individuellement et chacune de son côté moom waxam dafa tontu boppam li mu ma accusé moo ko tontu boo nee diw ak diw ils sont indissociables da nga nangu ni diw ak diw existé nañu ba noppi deux entités sont indissociables lorsqu'elles existent d'abord singulièrement elles ont leur existence propre ensuite elles se sont rapprochées et elles se sont associées à un point tel qu'elles en deviennent indissociables dootoo leen xam xàmmee ci ci parce que ànd nañ ci ay xalaat ay idées ak yooyu bu ñu nee ces deux amis là sont inséparables ça veut pas dire que benn jëmm la ñaari jëmm la yu daje di ànd bis bu nekk bis bu ne nga dégg si koñ bi ñu ni la ñaar ñi ils sont inséparables ça veut pas dire que benn jëmm la Pastef et Avenir sont indissociables dama yàgg a wax ni nu sommes les deux faces d'une même pièce mais dafa am pile ak face et la pièce mooy le projet politique que nous on a le même projet et la même ambition pour ce pays chacun nag nga doon li nga doon PASTEF est un parti politique légalement constitué avenir Sénégal bi ñu bëgg est un mouvement citoyen indépendant lii mooy différence bi waa premier ministre du Sénégal bu xamul différence boobu sëñ bi ça veut dire problème de niveau am na waaye problème de niveau am na foofu de nañ ko seetaat ça devient dangereux quand le premier ministre du Sénégal bi bëgg a nekk le président de la République mënul distinguer loolu ça veut dire que problème de niveau am na beneen bi nga xam ne def na ko muy lu grave encore une fois ma koy souligner pour jéem ñoo taqal dañu dem ci biir ministère de l'intérieur ak ñi ñu xaw ma ku leen ko seetal ñu génnee benn parti bu tudd avenir Sénégal dinaa leen jox récépissé ñu génne benn partie bu tudd Avenir senegal bu am numéro de récépissé 17 603 slash MINTSP slash DAGAT slash DRP bu tudd Avenir Sénégal ñu bind loolu ci seen document jox ko conseil constitutionnel ni conseil constitutionnel gis ngeen Cheikh Tidiane Dièye parti ma ngi nii nag avenir bi ñu leen di wax mu ngi nii avenir Sénégal Pastef wante mooy parti waaw gis nga ko ñu joxe